Sall génne ko ministre transport génne ko ñu toog di ay suufu Dakar ñu toog benn place demuñ dikkuñu tey xañ na amuñu ay mooy yu joxe état bi wala gouvernement bi waaye am na suñu oto bi ñu xoolee xam ne ñun ku ne ku mu ngi jàpp si si couvre-feu bi ñu jël gis maire yi ab Lahad Ka ki ñuy wax ku ñuy wax euh, Moustapha Missiré di ndaw loo xam te bokk si ñun di taxaw guddeeg bëccëg mu ne si maire yi jox suñu kàddu mu xam ñu amuñu luñ jox état waaye am na loo xam ne oto yi muy moyens yi jàpp si liggéey bi ñu ñëw sol si gasoil ànd ak ñi joxe ceeb bi ndimbali ñi ko yeyoo ñu ànd ñoom di jàpp si liggéey bi. tey loolu moo suñu tànk ak tànk sëriñ yi daw al yëpp kenn demul fenn depuis man 20 jours ñu toog diwuñu fenn tey lu jàpp si liggéey bi mooy ñëw fii ànd ak maire Abdou Lahad Ka ak Moussa Messere ñu jàpp wër dëkk bi jàpp gi mooy yor oto yi ànd ak ñi fi ñu war ceeb bi war jëm ñu contrôler ko xool ñu ko war a jox comme ni nga ko maire waxee. loolu la si jàppee ndax ñu amuñ lu maaju may yu maa joxe waaye am na suñu oto ñi xam ne muy liggéey bi ñu jàppale ko pour liggéey bi ñëpp fépp dem fi ñu war dem ñu dem ñu fa ànd ko yar ak teggin ndax loolu la ñu xamee non dañuy ànd ak dañuy ànd ak bi fi ceeb bi war a dem ñu àgg xool yur fee xool ko bu baax fu war a jëm buñ paree ñëw ko raconté président ab Lahad Ka séddalee dund bi nga xam ne yàlla dafa dogal mairie bu Touba dégagé deux cent millions jënd ci ceeb ak sucre jënd ci aussi diw ak saabu pour jox ko population Touba bi kenn ku ne xam ne nag situation réew mi fi mu toll nii ci wàllu feebar bi fi dugg moo ko waral parce que nit ñi bu fekkee ne seen activité wàññi nañ ko di leen tëdduloo vingt heures di leen yeewuloo six heures du matin am na ñoo xam ne guddi lañ daan lijjantiku pour xëy mën a joxe dépense loolu ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñu dénk leen dëkk bi te li ñu yor ñu dénk leen ko ñu génn ci tamit aussi delloowaat ko ci askan wi loolu moo waral tey ñu daje fi en tant que conseil municipal ak suñu maire Abdoulaye Ka ak ñi mu àndal ñëpp ñu def loolu pour jox ko askan wi pour askan wi tamit aussi mën a xam ne saay su nekk maire bi mi ngi ci seen wet dama jàpp ne devoir la waa ni ñu koy séddalee euh, loolu lu yomb la ñëpp ko mën a comprendre parce que ñëpp am droit am information maanaam ceeb bi duñ ko duñ ko indee xam nga Touba dafa am mu tëddee ay village la ay plus de soixante quelques villages mais chef du village yëpp kenn ku nekk woo nañ la jox la bon war laa jox tamit li nga am ci ceeb nga yóbbu ko ci sa village mais li ci li ci am solo rek mooy ni ñu ko tëralee chef du village bi day bokk ci ñi koy séddale chef de quartier bi da ciy bokk bajjan gox bi da ciy bokk wala représentant femme bi fa nekk moom représentant jeunesse am tamit koo xam ne si ne moo moo fa représenté commune bi moo xam ne si ne ñoom ñëpp dañuy ànd bokk ci séddale bi loolu boo gisee euh, ñu def ko ci u maire dañu bëgg séddale bi am transparence parce que xam nga fii dafa bëri coow lu fi mas a ñëw rek dañ naan ñenn nit ñi ñoo koy lekk bàyyi bàyyi ñenn ñi séddale nag moom daj lépp yombul ndax Serigne Saliou Mbacké waan anhu nee woon na euh, séddale li tax mu metti mooy foo yem rek fa say noon tàmbalee te yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk ñun ñëpp sax di séddale moom séddul ñëpp waaye nag dinañ def suñ kéemtalaay kartan def le maximum def loo xam ne ñun suñu tëddee ñun ñu koy def dinañ kit ak suñu conscience li ci des nag xam naa ne ñu ngi koy xaar mënut a ñàkk mooy ay coow du ci mën a ñàkk parce que am na ñoo xam ne si ne loolu non dañ koy xaar laa la wax waaw xamal tax ñu koy xaar tamit waaw moo tax ñu ko waaw mais xam nga ko fi ñëw tamit yaa fi indi sa bopp amul benn yoon boo xam ne mas nga mën nga dégg ku bokk ci mairie man ci conseil municipal bi laa bokk je suis le président commission jeunesse amul benn yoon ku mas a dégg ñu ne ñëw leen mairie ñu ngi fay séddale ceeb tey façon séddale bi moom kenn musul wax ne dañ koy séddale mairie ñi fiy ñëw ñëpp ñoo fi indi seen bopp nit nag sooy dem foo xam ne kenn woowu la fa yaa fay yóbbu sa bopp léegi nag da ngay assumer tamit coono ya nga fay jëlee ak la la fay dal parce que tamit nit nit rek nga mën a doon waaw. mais est seen la ñu ñëw ngeen jël seen loolu moo gën a bon fu ñu toll nii boo fi indi woon ay nit tey jii ñuy dóoree wala ñu naan andu leen nit ñi xël fi xël fi di daanu image yooyu bu ko nit ñi kiiyee xam nga fii téere Baye Gilaay la nekk fii nekk fi ci institution wala ngay def wala ngay nga jiite fi dara téere gi Gilaay la takk dee tekki dee téere boo xam ne nag soo takkee dee soo tekkee dee soo tekkee dee tekki dee moo koy gën benn yoon